amiin waa daaira Tuhfatul Mutatarri'in soppe si góor say jàng waa kër jàng nañu juróom fukki kaamil ak juróom ñett cinquante mille li mu xasiida tam liñ ci jàng lu takku la trois mille cinq cent 43 ñetti junni ci xasida ak juróomi téeméer ak ñeent ak ñett sëriñ Ceerno lay ca layeen si gët ñu jàng na ñaari kaamil waa daayira Ture Mbay fukki wakaana xaqan ak juróom jàng nañ ko jàng fukki tuhfatul mutadarriina ak ñett jaalibatul maraaxib mu jàng ci ñaar ay sirul ansi jàng benn lépp lekk ku ñuy wax sëriñ njaay Ndiaye moom jàng na ñaar yeneen ñi nga xam ni jàng nañ sax yóbbul joxe wuñ ko waaye loolu yëpp dañ koo jagleel sëriñ Mor Seye ak sëriñ Mor Ndiaye Dakar ak sëriñ maam ak seenu njaboot ak mboolem taalibe yëpp ak mboolem jullit ba moo tax ci teewaayu kilifa yu tedd yi jiital si sëriñ Modou rek li ma ko wax woon léegi ak mboolem njaboot eh, imaam alxaaji Modou Diagne parce que xatmu alquran bu ko defee ñi ngi nekk en direct Kërsi FM 89 point eh, nga xam ni ñoo fa rajo di jote fi mu ne ñu ñaan bi kon fépp waaye ne mu taataan teewlu allah ñu jàng xatmu bu ko defee dañuy daal di xatmu euh, jataay bi nag bu xat moo rek daanaka dañuy jox ñenn ñu jot lenn ci ay kàddu rek lu aju fii la ci des dañuy xaar ci kanam bu jullee tisbaar danañ jënd fii ci bâche bi def cérémonie officielle incha allah boobaa liñ fi gën a yaatu waaye kon fi mu ne ñu teewlu ñooy nekk en direct ci rajo Kats FM 89 point 6 Oustaz Aliou Badara mi Thiaw moo leen fi teewal xam ngeen fan yi fu teewlu amal nañ ci waxtaan wu am solo.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 الناس من مثل الناس بالله لما صدق الله الحكيم ورسوله النبي الكريم ولما على ما قد ربنا ومولانا انك هدنا اللهم افتحنا في القران الكريم وانفعنا بآياتك وتفهمنا بالدين اللهم افتحنا وكمل ويجعلنا في ملة مخرج مخرجنا ونجعل النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقنا ميزاننا بنفسنا وسلم كتابنا ولا تفتنا وقنا واسق جنان وسقنا جوار سيدنا محمد هذه صلاتنا بلد ومصباحنا بلد والذي لنا بلد الخلف وسنا بما تقبل وهلا الهداء يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر حاجة لنا واغفر آمالنا وقل من خدونا وأعسالنا وجسدنا ونورنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والهم بالديار حاملين آمين آمين آمين آمين يا رب آمين الحمد لله foog ngeen. mboolem seen i tànn ak mboolem jullit alhamdulilah kon ginnaaw xatmu bi ci alquran seen taxawaay rafet na trop ci bis bi. am na ñoo xam ne jàppee bis ba léegi rek ñu ngi ci di ñaan ci alquran bi ci xasida ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi lépp loo xamante ni rek buñ ko ñaanlee ku dawlu mu jariñ ko ñu ko doon taxawee yal na yàlla fay leen ci ngeen di fay euh, boobaat nag képp ku ci nekkoon sa bopp it nga koy doon defal waaw bisid duaa yan faw maytan fil xubur wa yanfaul xayya wa yujibul ujub loolu maam xaadim rasul wax rawaaten nag nit ku baax nga koy fàttaliku du ko ñaanal boobaa tabarakallah lépp lu mu jot rek ci ay xéewal yërmande ak njéggal yow itam sa wàll nga alhamdulilah gën ko dëgëral te loolu moom it loolu mooy warteefam ndax surtout maam Cheikh Issa bu ñëwee kër sëñ Mor Ndiaye Tàggaar te ñëpp xamoon na wala dégg nañu kulle rek nga xam ne moo doxoon diggante Maamoor Njaay Tàggaar ak maam Issa tabaarakallah ñu àndante ci Serigne Touba àndante ci tundu Tàggaar wi tundu Kajoor wi kon loolu ak sëtam yàlla na am na ci wàccuwaay kon sëñ Chérif jox nañ la wàccuwaay bu baax. moo jëndee ko léegi ci taxawaayu Baye Mor Ndiaye mais ci Màkka nga xam ne moo fa nekk sëñ bi ak mm-hmm. cent dix euh, ma faatama loolu rek yóbbaale na bis bi lépp ak ñeneen ñi nga xam ne barkeelu nañ ci ñu nga xam Tuubaa lañ dëkk wala fu mel ni Saint-Louis wala Daaru Muxti yi ma bokk nañ alxuraan ñëpp kenn ko ne def na ci yëg-yëgam bu baax ci bis bi te jox dëgg yàlla bañ leen ko waxee sax kenn ku ne rek na ci xam ne kon sëñ bi comme que ne ñi nekk ci àll bi ñoo koy ñoo koy liggéeyal surtout ñun ñi nga xam ne ay doomam lañ kon war nañu fonkaat bu baax ci topp suñu ndigal waajur bu baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko laajee ayul ahmad ahabu ila llahi taala hmm. qaala salaatu fi waqtiha hmm. qul summa ayu birru walidayn hmm. alquran wax ne wassayna linsaana bi walidayn husnan wax budullah an laa tusriku bihi shay'a wa bil walidayn ihsan in qul summa ayu min al jihadi fi sabilillah wa jahidu fi la xaqa jihadi wa wajtabikum ma jaal fi din min xaraj min ila axiri aaya kon loolu rek dañ amoon nañu sant ci bis bi asalaamaaleykum wa barakaatu. Euh, jël euh, leen fi teewal ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant kon sëñ Mor Belel yaakaar naa fekkente ni kàddu yi foofu lay yam ñu yamale ko fii ba ci kanam euh, leneen la ca des bu demee ba julli tisbaar ñu génn ñun ñëpp ci jataay bi ci gént bi waaw sëñ Modou ak ay rakkam yëpp ak taalibe yi jox nañ leen fi addiye ñu doon jàng alxuraan pour loo xam ne rek ñu dolli koo ko faas cent quinze mille francs mi ngi nii ci ñu euh, jox imam waaw waa Loyeen Yiiru waaw ñooñu kenn du leen fàtte moom bis bi seen bis la ndax sëñ moo sëy ndeysaan man mii am na ay jamono may lim ba may lim ba euh, tudduma waa Loyeen daa daal di wax ak waa Loyeen Yiiru tabaarkalla ci ci ci saas Euh, kon nag waa Loyeen yéen itam bis bi seen bis la euh, ñu ngi leen ci jox seen wàccuwaay kóllëre gi nga xamante ni moo doxoon seen digganteek sëriñ bi tabaarakallah yéen a ngi koy sàmm di ko matal yàlla euh, gën leen dëgëral bu baax a baax gën leen dimbali sàmm kóllëre gi dëkk yi wër Daaru Njaay buñ limee dañ dul matal waaye ñëpp sat dañ leen ñëpp gërëm nañ leen kóllëre yi dëkkandoo yi xarit yi am di jàmm yi jullit yépp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp kon dañuy jox sëñ bi mu ñaan ñu delluwaat ci dal yi incha allah ci kanam rek ginnaaw tisbaar la leen seen wax na maanaam jullit bi dafa war a am jumtukaay boo xamante ni si mooy arme bu ñuy yore ngir xeex ak ñooñ ba mën a àgg ci digganteem borom te loola mooy ñaan moo tax mu ne ñaan mooy ngaan naayal jullit ñaan boobu moom la ñuy defal sëriñ Mursi tey jii ñu ko ci wàcceel alquran ñu nit dana ñaan ngir am lu mu ñor teyam nit dina ñaan ngir am lu mu dàq te yam nit dana ñaan ngir am lu mu yotti am lu mu dàq ndax di nga hmm. ci solo boo xam ne ñaan am na ko de hmm. léegi nag yooyu yëpp dajale nañ ko ci bés bi dugalaale ci mboolem jullit yi waaw ci bisu sëñ moo sëñ bi hmm. dajale nañ ci yooyu yëpp maanaam ñaanal ko ñaanal jullit yi yëpp ñaan yàlla taaf na ci barkeem njaboot gi mu fi bàyyi sunu boroom teg ci loxo ñu ngi siyaare ñëpp nag di siyaare sëñ Modou Maram bi di am Thank you. Vamos abrir يصب بناطيل بعض فاتم كبل الجنة